xaalis bi jeexna nos bi jeexna nax nañu len ba fexé ba réélire ngeen tedd seen kër xamnañ ni ne Sénégal bu ñu seen bulletin ba paré ña nga dem tedd seen kër di xaar 5 ans légui nak ñom 5 ans yi ci dess ñi ngi sét naka lañuy ñuy lekkee liñ fi jot jël ñi jotul am wuti trafic drogue ñi jotul am def faux billet té dara du len ci fekk. ndax xaalis rek mooy doxal Sénégal xaalis dañuy naxee nit yi léegi bu ñu ñëwee tey jii ne dañuy yokk njëgu électricité njëkk a jël lu mat presque cent vingt neuf milliards ci loo xam ne dafa waroon dugg ci askan bi dugal ko fa doole ci ne dañu soxla yeneen euh, douze milliards yu ci bokk ma ne waaw xanaa dañu fi doon vanté ne am na benn DG bu extraordinaire boo xam ne mooy régler énergie Sénégal ba def ministre de l'énergie te ko defal ko promotion mané ne ki ko bëgg def audit ñu ne ko dédé togal lu tax lolu ki ko taxaw nañu dafa soxla 12 milliards mais 12 milliards mais lu touti la ci budget présidence lu touti la ci assemblée lu touti la ci fenen ak e conseil euh, euh, voilà ça loolu yëpp ñi ngi fay rekk loo xam ne duñ doyee dara lu dul caisse noire ak ay nit yoo xam ne dañ leen di jox euh, xaalis bu bare bare bare bare te la ñuy jëriñ Sénégal kenn xamu ko kenn mënu ko natt fenn ne au bu de 4 ans au bu de 5 ans lii la ñu andil Sénégal donc xaalis boobu buñ ko soxla woon mënoon nañ ko jëlee foofu feneen fuñ ko mënee a tamit mooy ci tax naxe Sénégal bi dañu ñëw tabax ay infrastructure ñu ne soxla nañu ay infrastructure wante ñaata xaalis lañu def ci infrastructure boobu ak ay surfacturation ak ay avenant marché yuy dem ak a dikk njëg gi di yokk rek ba xam ne fi mu nekk nii presque suñu 4000 milliards yi 1000 milliards yooyu loolu lay fay ci bor yëpp day dellu bu ñu soxlaa tamit boobu xaalis ñi fi ñëw ñëpp pétrole bi yegseegul wante am na ñu nekk ci phosphate yi am na ñu nekk ci zircon bi am na ñu nekk ci pêche bi ñu leen di exonérer fiscal mu nekk ay milliards yu dem loolu tam duñ ko jëli leneen li feneen fu ñu jëlee tam milliards mooy ki ma jiitu léegi fu mu wax ñi ñu jàpp loxo ci poche boobu wóor leen ne que xaalis bi ñii ñoo ko yore fii lañ ko jëlee te lii du yoon lu tax ñu leen di bàyyi ñuy doxantu lay leen xaalis bi ñu dem donc bu ñu soxlaa xaalis am na fu ñu ko jële moo tax ñun askan bi duñ ko nangu. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg